you. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañ ñu koy topp ci site internet bi di Buzz 24 Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek foofa ci assemblée nationale ay député yoo xamante ne rek ñoom ñoo nekkoon nag ci parti benn bokk yaakaar nag dañ leen xeeñ seen salaire ak seen carburant bi nga xamante ne rek doon nañ faral di ko jot chaque 7 octobre bu nekk nag niki tey nag bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar bi nga xamante ne bés bi la moom moo ko daal di fësal ay député yoo xamante ne e législature ñu bokkoon ah xëj leen seen salaire te nag seen salaire chaque le deux rek dañ leen faral di leen ko viré bu ñu sukkandikoo ci boobule journal nag trésor public ci jëmmi boppam rek daal lay interpellé ay yoon yoon ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy responsable yi ngir ñu xaar nag ay instruction waaye nag ban instruction bés bi nag la mu daal di xam ne rek bu ñu sukkandikoo ci le quotidien d'information moo di ne nag ñu ci bëri rek jamono ji daal ña ngay daal di rek waxtaanee wala sax ak xumtoo blocage bi nga xamante ne rek def nañ ko salaire ci ñenn ci ay député ak ay carburant yoo xamante ne rek euh, def nañ ko mu nekk nag mbir moo xamante ne daal ñu ci bëri nee na nag lekk loxo elimaanu jawrin bu njëkk bi nag di Ousmane Sonko daal jugul ca ndax nag moom ci jëmmi boppam rek euh, jot na bloqué nag ay salaire yoo xamante ne ci yenn ci ay membre aux collectivités euh, territoriales la ñu bokkoon mu nekk institution exécutive boo xamante ne rek lañ ca nam ma def mooy màbbal li nga xamante ne rek moom mooy majorité bu parlement bu groupe opposition bi nga xamante ne rek ci benn bokk yaakaar la ñu daal di bokk mu nekk ay député yoo xamante ne rek jamono ji ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci bés bi le jour ci constitution bu article 87 alinéa 4 la mu daal di xam mandat dafa daal di jeex nag ci mbir mu nu mel. tant que proclamation résultat amul ñeel élection yi nga xamante ne rek membre yi ci assemblée nationale mbir mu mel dafay daal di wane rek ñoom ñooñu am nañ droit nag am seen salaire ak seen avantage fii ba novembre ci date élection législative yi nga xamante rek fas yéene nañu ko amal du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné ba cloche de notification yi ngir mën a